Balla mi ngi mi ngi dellu si waat ah. sànq gis nañ ko. à la TFM mais Balla Gaye mi ngi commencé di dellu si depuis contre Gris Bordeaux. depuis contre Gris de. mi ngi yéegaat ci pantam. sauf si que daa am est-ce que. mais jaral na ko mu delloo ko. mais os os bi mu nekkoon avant man bala Gaye moom lay def bi ma gis tey. waaw mu daw ci biir stade bi. waaw man je ne crois pas que mën na dellu si à sa meilleur à sa meilleur son meilleur niveau. parce que tey daal li ma ko gisee parce que tamit en réalité xoolal tey euh, Eumeu Sène bii. Eumeu Sène xam nga quel est problème nu mu bëgg mel rek mel ko parce que combat bi aussi Eumeu Sène daf ci am doole. waa daf ci liggéey. Mm-hmm. état de forme bu bu bu bu. extraordinaire la andi. donc Balla Gaye man daal jàpp naa ne euh, war na gën a def nànk liggéeyaat parce ñii ma gis nii. tey bu ñu dalante ak moom man jàpp naa ne ba tey ñoom ñoo ko ëpp doole. ñoo ko ëpp doole donc techniquement. Mm-hmm. Euh, c'est le maire moo leen ëpp ay bagages technique moo leen dàq bëri et tout ñëpp xam nañ ko parce que c'est un très bon lutteur mais nag physiquement ni ma gisee booy yi il faut que mu liggéeyaat. mais Grand Rail Balla dafa yor sañ-sañ boo xam ne benn mbër amu ko. Mm-hmm. sañ-sañam boobu. noo mënti mel ci mbër boo taseeg moom. Mhm. da lay déstabiliser wala loolu. mais mais mais pas Moussa bëre doole. xam nga tey boo xoolee mais bu liggéey mu jël. non mais Balla Gaye def trois appuis. mais Balla Gaye bu fekkoon ne peut-être. amul doole day ñibbi. Tapha Tine bu liggéeyul woon. ku bi mu jël d'accord